mbokk yu baax yi euh, kii euh, message bu am solo la benn docteur moo ko yónnee moom dafa nekkoon Côte d'Ivoire di ko servir ci àll ba ci jamonoy guerre ni na waaye benn bis ñu indil ko koo xam ni maanaam jaanu ñàngoor yu mag yu yu yees yooyu ñoo ko màtt ki ko indi sëram la ba koy indee moom ni na ñoom amuñu am na pikiir bu xam ne bu raar la boo xam buñ ko ko buñ la ko defee dina tax loolu di venin bi dangar gi euh, daa di wàcc waaye ñoom amuñu ko li ñu yoroon mooy piqûre yu ndaw yoo xam ne mën nañ la ko def ndax nga mettit gi wàññeeku rek waaye ñoom xam nañ ñu ci faatu nga jëm képp koo xam ni màtt na ko ba mu indi ko fa dinañ fexe daal ba mettit bi wàññeeku waaye moom da ngay faatu moom it te gis na signe yooyu ndax ñetti signe la waaye mu ni premier degré bi romb na mu gis ni kooku mu ngi gën a sonn ba weesu ñaareeli étape bi mu gis ni kooku ngi gën a sonn te ñetteeli étape bi rek mooy dee ci topp ni na gis na sax kooku ci kanamam jëm ci ñetteeli étape bi niñ leen ko jàngale ci wàllu docteur mu xam ni kii kon léegi mu jeexal ni na ci la gardien ba nga xam ni moo fa ne dëkk ci àll jóge ci àll ba ñëw ni ko bu dee wóolu nga ma de mën naa la jox benn pexe boo xam ni dina tax kii kii mucc ah comme pexe amul mu ni ko waaw loolu ban pexe la mu ni ko dem leen ngeen jëlal ma bu dee am ngeen ñetti soble ngeen indil ma ko ci waañ wi mu indi ñu indi ñetti soble bi mu ni fexe leen mu lekk ñetti soble yépp na ko yëy wan na ko na jàll lu mu weex weex lu mu metti metti forcé leen ko mu jàll ñoo ñu dem ci malaat bi forcé ko waaye ni nañu ba mu tollee ci yéey lekk ñaari soble genn wàll ci la daal di woccu ba mu woccoo mu woccu lu ñuul kukk maanaam venin bi li nga xam ni moo dangar gi nekkoon ci jaan bi yëpp noonu la ko génnee ba ni na at genn wàll après sax waaye ja mu fa daan ñëw di leen ziar moom malaat bi nga xam ni moom la jaanu ñàngoor bi màttoon donc loolu mu ni muy message boo xam ni ci xam-xam la bokk yi nga xam sunu borom may nañu ko jële ko ci yu simple ci nature bi ne na ñoom sax dañuy wax ci seen aada ni kër dafa war a am ñeenti soble angle bu ne mooy këru àll yi xam naa ak seeni sàkket angle bu ne wala kër yi nga xam dafa xaw a jege àll te doon miir sax waaye àngal bu ne da nga ca war a def benn soble ndax ne loolu day dàq jaan yi ak lépp loo xam ni day day day lore ci wàllu di màtteeg yu mel noonu lu mel ni ay jiit yooyu.